wa maa li xayri la yabiin min bustarin wa ni'amin abidtu zikra wal asiis waliya jaada bi asiis wa maa muraadi bi asiis alal xadiiril mun'imi mulku lazi lahul wujuud yaquudu li am na rek sëñ Muntaxa moom réew mépp ko yitteel njabootu réew mépp ko yitteel Eh, yabaloon na ay ndaw ñu jóg dox lu tax jàmm rek di fi am ñooñu nag ñooy suñuy ay sëriñ eh, ku ne xam na ne kàddoom Cheikh Mouhamadul Bachir mu Cheikh Abdou Khader moom moo yor kàddoom ku ne xam na ne yabaloon na eh, sëriñ Bassirou Mbacke ñu di ko xam ci turu sëñ Bass Poroxaan mu ànd ak yeneen kilifa ngir dox jàmm lépp daal tege ci suuf ci ay ñu xam ne réew mi benn réew la njabootu réew mi benn njaboot la loolu nag moom lañuy dog dugg ñun di mottali rek ci di dox tànki taalibe ndax kilifa yi bu ñu defee lañu war a def ba noppi la ci des wàllu taalibe la rek kon ñun dañu jógoon ngir loo xam ne ndàmpaay la Serigne Mountakha yëkkati ko doon ko teg ci seen loxo ngir ngeen taxawu ko ci wàllu paj mi euh, moom moom moom sëñ Chérif ngeen taxawu ko ci wàllu paj mi euh, yëg nañu it nemmeeku nañ ba xam ne yàlla suñu borom mi ngi ciy def tawféex loolu kon ñaanu kilifa yi moo indi loolu yàlla na yokk jërëjëf kon nañoo bëggoon teg sa waaw. ma سره المنبحم حفظ ربي فكره بي وأديم سكره ولي يديم بسره ما سره المنبحم barakatul tul Mustafa yi xamante ne yàlla suñu borom dafa kon mu amoon ay gaañu gaañu yàlla def itam ci ñaanu kilifa yi mi ngi am tànn Euh, sëñ Mountakha kon mu ngi ñu yónni di la massaw waaw loolu moo ñu kon lii téeméeri junni la maa ngi koy teg ci loxol sa wayjur su ko defee ñu xam ne ci teewaayu sëñ imam euh, lépp ñu xam ne njabootub lislaam ak njabootub Sénégal genn njaboot la sëñ Mountakha lépp loo xam ne am na fenn ci réew mi ku mu dal ci yow rek xam ne ne mu ngi koy yëg fa mu toog ni ko kilifa diine yëpp tamit ni ñu ko ni ñu ko jàppee mooy Sénégal benn bopp rek la loolu waaw waaw kay kon imam ñu ngi lay ngi lay sant bu baax ci teewaay bi euh, di di di di leen massawu loolu rek moom moo ñu indi euh, man sama sama man tànki taalibe rek laay dox si tànki taalibe rek laay dox si ndax euh, kilifa yi li ñu waroon def def nañ ko ba noppi ñun dañ ñoo yónni rek ngir ñu yëkkati lii teg ko ci seen loxo ci ci turu sëñ waqaatani bil abyadi wa kaana li bil karami maanaam taxawaayam ci nit yi yëpp nag ñëpp nag amul tijaani amul murit amul kaadir amul amul dara xam nañu moom dafa taxaw ci ci jaamu yàlla ci ci nit yi lépp li nga xam ne moom maanaam soxal na nit yi mu ngi lay taxaw mu taxaw maanaam ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm mu ngi lay ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax a baax ñu ngi lay ñu ngi koy ñaanal bu baax waaw na jotal ngeen ah, li nga xam ne moom moom la yónni woon ci ñun jërëjëf jërëjëf معرضا معذمين خدمة خير العالمين سبل خير من يبين وبالأمين والأمين كث بلا تعظمين لم ينهني كفر ولا فسق ولا سرك ولا ما يطلب التخولا والله على قلني